Bienvenue sur Salam Vision. maa nga jëm Parcelles Assainies unité 21 en face terrain basket bi dem seeti Ahmadou Bassirou Ndiaye Ngérane borom bi may ko lool ci xam-xam xam-xam boobu nag mu ci dimbali nit ñi mu daal di leen defaral ñetti ubbeeku yoo xam ni da koy sangoo maanaam mu di ay saabu yoo xam ni am na ñetti niveau boo xam ni saabu bu njëkk bi day def ci yow ubbeeku ba noppi def ci yow protection ndax yéen ñëpp soxla ngeen protection ñaareel bi dafa lay ubbi ba noppi indi la wërsëg ñetteel bi nag mooy niveau bi gën a kawe ñetteelu saabu bi ubbeeku bu leer nañ ba noppi nag àndandoog li xam ni liy dugg sa loxo day des ci sa loxo di toog ci sa loxo kon Ahmadou Bassirou Ndiaye li la yàlla may jërëjëf ci ni nga ko bokkeek jaam yi rawatina nag ñi nga xam ni dañoo am problème mu njaboot nga xam ni nag ay góor lañu am nañu kàttan waaye mënuñu am doom mu dimbali leen ndax léeg-léeg góor ak jigéen dinañu nekk ci sëy duñu am doom ñu ne rek ku jigéen ki la fekk yow ku góor këyit daa war a faju kon ñëw leen seet si Ahmadou Bassirou Ndiaye mu jaarale leen ci produit boobu muy wax Nasirullah Nasirullah nag dina la traité bu baax yow góor ki nga xam ni koo jege rek di nga ca mën a am njaboot Bassirou Ndiaye Nguirane Parcelles Assainies unité 21 janoo ak terrain basket bi téléphone 76 589 93 67 wala 78 469 24 30. salundaari salundaare woo woo foofu gaay rek sunuy maam wóolu naa la maam wóolu naa la Qu'est-ce que tu veux? Je veux vivre, rester libre, je veux m'envoler vers le ciel. ndam li fi amoon daaw suñu yaakaar ne woo ñu kóllëre ñu boole yow président Macky Sall a jaaraama 1er décembre 2008 1er décembre 2022 joyeux anniversaire 14 ans après li nga def ci réew mi mu ngi nii taaju le mix énergétique la centrale de Taïba en tax na ba courant bi dem dans les contrées les plus reculées de ce pays a jaaraama sénégalais sénégalaises góor ak jigéen mag ak ndaw xale yeeg yépp ñu ngi leen di nuyu leen wax nag tey bésu président Macky Sall la ndax 14 ans nga xamante ne da ci xeex ànd ak dignité ànd ak foi taxaw wàkkilu suñu borom ne dafa bëgg réew mi sénégalais yi jël jox ko ko sénégalais yi jëlaat ko joxaat ko ko en 2019 mu jàppale ñun ñëpp taxawu ñëpp kon tey dañ koy wax jaraw lakk di ko wax joyeux anniversaire di ko wax say jigéen plateforme Défendre 4 taxaw nañu tem fas yéene la gunge ba 2024 saa soo ko bëggee ak noo ko jaarama son excellence monsieur le président Macky Sall hande woni ñalawma manditare mo mbadda créé le parti apr min beltima kadi no fewi e ma min beltima e ma e golle pattamle miije de mbatta e nder leydi sénégal kono kadi machallah ɗo ene caggal leydi kadi darde ma wadda fayida mo mbatta o ɗum ɗon foof kadi min beltima hen no fewi membre de la plateforme femme cadre de l'apr donc min beltima min mbima a jarama ha yesso ko lawol mbaɗi manni kolonal kammoylal ngal konton na président o ngi konton le président Macky Sall le président de tous les sénégalais ngi konton alma ala yebula jam ngañi vidéo ke pour ka fuye happy birthday happy birthday to you alma mela jam mol lena mon fenje mu yemol dim mbem kukalinda manne foloye wolom yemmi jam fo 2024 andu itelo molla candidat inchallah rabbi itelo molla candidat assalamu alaikum Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour d'anniversaire, nous vous disons Happy Birthday to you. di occasion bi pour vous dire merci jigéenu Sénégal ñu ngi lay jaajëfal xale yi Sénégal ñu ngi lay jaajëfal nitu diine yi ñu lay jaajëfal le monde sportif ñu ngi lay jaajëfal vous êtes incontestablement une chance pour le Sénégal vous êtes le. on Madame Diallo Magatte Niang joyeux anniversaire son excellence monsieur le président de la république pour les 14 ans de l'APR jaarama fi réalisation d'Idune Fopp et en route vers le second quinquennat bonsoir président de la république du pour notre parti APR. E et joyeux anniversaire à tous les militants et militantes de l'APR. E Permettez-moi de vous dire félicitations et merci pour tout ce que vous avez fait pour le Sénégal et euh, concernant le développement et particulièrement le PPSE. Je vous dis aussi merci pour tout ce que vous faites pour toutes les personnes vivant avec un handicap. Euh, je m'appelle Madame Djandi Adrienne Bigembout. je me présente Aïssata Sall Ya Seyda APR en Bel Air jaaraama président l'homme des grands projets asalaamaaleykum man la Aminata Gueye maa représenté fii Samuel Sarr Tëngéej mouvement de l'espoir ñu ngi lay wax joyeux anniversaire Tëngéej yëpp kontaan nañ ci yow monsieur le président donc ñun maa ngi bokk ci plateforme des femmes cadres de la majorité présidentielle joyeux anniversaire Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mi Marianne Diouf, bi Thérèse Diouf, gen Fatick, gen Pëlga, mi na souhaité un anniversaire. Ina waxee danang jam fa mayu, jam fa bor, ina waxee danang wod fa wodanang, ina waxee danang wod fa baal, sutura fa mayu, kam saate fe, mu Sénégalais ref na rek, ina souhaité à joyeux anniversaire à notre Sénégal man la madame Dramé Aïssatou Diop bokk ci plateforme des femmes cadres de la mouvance présidentielle en ce jour du 1er décembre 2022 on di joyeux anniversaire à l'APR joyeux anniversaire à notre cher président de la république monsieur Macky Sall moom moo tax tey ñuy def lii ñu moom moo tax tey ñuy porter compa bi ci 2024 bi incha allah jërëjëf président jokkoo njël président. jarul nag président merci beaucoup. salaamaaleykum wa rahmatulah madame Alimatou euh, de la plateforme des femmes cadres de la mouvance présidentielle et de la cellule comme de Benno président Macky min calminima mi ɗonima mi wiima joyeux ma minenema min jaalema min calminima min min beltanimama e yabarke seydina mouhamed yo allah rokku en jogoɗa coupe du monde tertoɗa joueur uji ɗi yabarke seydina mouhamed 14 ans 14 ans au Café Télé. La plateforme des femmes cadres de l'APR et de la mouvance présidentielle, le président Macky Sall souhaitait un joyeux anniversaire président Macky Sall Sénégal be tentu la abe jayi la ñi ñaata iba Sénégal samba kan ñaato émergence au camp président Macky Sall mbe tentu la fàtte gi yàlla président Macky Sall Sénégal oriental ko kii ni ini baraji ye sénégal bo yoromina iɓe sénégal sambala yoromina anide réalisation oni ɓa kene sénégal konola sénégal oriental bi fo wi tanno kini ce ini baraji ye université minta ka naati ka di an diw an dogoni an koro ini ini baraji an mbi tanola kii foyo i joyeux anniversaire salaamaaleykum Sénégal ñëw nag di souhaiter suñu président de la république président Macky Sall les 14 ans de APR macha allah yow liggéey nga ci réew mi liggéey bu am solo waaw 14 ans yi moom gisuñu fi lu réussite totale liggéey Sénégal gis nañ fi nga jëlee réew mi ak fi nga indi réew mi ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire pour les 14 ans de APR. Nyanomi es umuhairi. Feliz aniversario presidente Macky Sall. feliz aniversario di parti di APR. E fazer 14 anos, 14 anos que não fazemos parte de APR. Que sabe, nos contente de, de se pega parte. Nos contente de se trabalho. asalaamaaleykum sama mbokku sénégalais asalaamaaleykum sama mbokku APR. Euh, maa ngi leen di wax joyeux anniversaire particulièrement à monsieur le président monsieur le président de la république son excellence euh, ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire yaag sa parti yaag parti bi ñu ngi leen di souhaiter joyeux anniversaire ñun waa Joal Fadiouth ñu naan joyeux anniversaire monsieur président réalisation yi ex nañu fii Joal Fadiouth monsieur le président réalisation ke mbadida meken bo Joal Fadiouth monsieur le président ke buwon heñof yasan loxo yàlla fiirona ten in way ndeyam jokanjal jokan maaleykum man la Mariama Diaw présidente AFP maa ngi souhaité un joyeux anniversaire à son excellence le président Macky Sall pour les 14 de son parti APR di ko ñaanal beaucoup de succès euh, pour son plan Sénégal émergent vraiment pour yokkute Sénégal. ñëpp di profiter nag ci occasion bi ci 14e anniversaire APR. qui souhaiter joyeux anniversaire au président Macky Sall tout la famille APR particulièrement à toutes les femmes di nuyu ñëpp nag di ziare ñëpp di naan président Macky Sall yal na yàlla parti bi gën a dem ca kanam gën a yaatu yàlla may ñu ndam ci échéance yi di ñëw e ca kaw ca kanam incha allah nu sommes derrière le président Macky Sall di nuyu madame la première dame di nuyu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah Eh, salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di souhaiter joyeux anniversaire à notre parti à notre président de la République CM Macky Sall ñu ngi koy ñaanal yàlla fan bu gudd ko ànd ak wér-gu-yaram di ko ñaanal yokkute di ko ñaanal yal na yeneen bi oyof ci kawam moo xam fi mu bëgg yóbbu Sénégal yal na ko suñu borom mayu wér ak fekkee ak tal ba mu àggale ko ci barke Seydina Mouhamed. Eh. asalaamaaleykum waa àdduna. asalaamaaleykum waa Sénégal monsieur le président de la république la plateforme des femmes cadres monsieur le président say jigéen ñoo ñëw pour sànkal la ci bésu anniversaire u APR monsieur le président le 1er décembre 2008 tey di 1er décembre 2022 14 ans après quelle belle victoire monsieur le président Olof Ndiaye def ne sama waa ji sama waa ji gàccee nga ci ndam a ngi ci mais monsieur le président ndam la ñu ànd ak yow. bonsoir c'est madame Maïmouna Ndao responsable APR dans les Sicap Liberté précisément je loge à la Sicap Liberté 1 membre de la CCA membre de la plateforme des femmes Benno Bokk Yaakaar donc euh, vraiment je je souhaite euh, à tout pour le parti parce depuis sa création jusqu'à présent. Vous avez fait des choses extraordinaires pour le Président Macky Sall, euh, joyeux anniversaire pour les 14 ans de la paire, notre parti à yaakaar Président Macky Sall, beaucoup de tout, kujuju wanulokom des souké tate. Sénégal, Afrique, tout, koku beregi, président Macky Sall, à Baraka. Kouseka, koku beregi, à Baraka. Kounyoli, koku beregi, à Baraka. Parce que, oula tout, di jujug wanu kaanum côté xëy ndaw ñi côté emploi des jeunes mais ku seek côté financement président Macky aw képp wala kaan un second parce que aw la comme le candidat idéal pour la. APR en 14 Ajaratu Fatou Ndiaye Seck Louga présidente départementale association Ndeyu Daara yi présidente mouvement Trait d'Union conseil départemental. mooy souhaité joyeux anniversaire son excellence Macky Sall di ko ñaanal yéen bi mu am ci tout tànk yi daara yi jigéen ñi jeunesse bi troisième âge tout la population en général yal na ko yàlla kàttanal taxaw ko téyel ko ay tànkam mook ñi mu àndal ñëpp ba mu eggale ko def ko ci na mu ko bëggee incha allah. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna man la Émilie Diouf présidente de Libido républicaine. membre active de l'Alliance pour la République tey nag suñu 14 ans d'anniversaire ñuy souhaiter suñu parti bi euh, un happy birthday ici à Qatar voilà président Macky Sall borom réew mi jàmm réew mi yow yaa ñu jikk doxalal ba kenn laal la Macky 2024 une demande sociale happy birthday happy birthday happy birthday. asalaamualeykum bandiraɓe asalaamualeykum son excellence le président Macky Astou Thiam Abibou Mountaga président Macky Sall je rends hommage à l'homme qui m'a rendu le sabre de mon aïeul je rends hommage en ce jour de quatorzième anniversaire à celui qui est venu du futur notre extraordinaire président son excellence Macky président de l'innovation président Macky Sall. Oh. bëgg Sénégal Bienvenue sur Salam Vision